ci géej la Bamba tiggee dambi xam-xam ba faf pour ali way xalima boroomam ba ak ci yàlla ak ci ngeen ji yoon nen ñu soppi ko soppi léppam muy boroomam auzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin makin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi diin mbokk yi ñuy bàyyi xel fii ci seen télévision Moukhaddamatoul Khidma TV ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen jaajëfal di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadinil Mountakha yàlla na ko fi suñu borom yàggal ba mboolem naal yi nga xam am na ko ci liggéeyal ko sëriñ Tuubaa ci dëkkam bi ak ci lislaam ak yoonu murit lépp man ko mottali ni ñu ko baaxoo defee rek ku ne xam na ne kuréel gii di liggéeyal ku tedd ki ak Moukhaddamatoul Khidma yàgg nañoo ànd di boole seen doole ci ay xeeti jataay yu wuute buñ ko ci ginnaaw bokk na ci jataay yi nga xam daan nañ ko ànd mooy lu mel ne jotaay yi nga xam ne daan ko amal ci weeru gàmmu yuy jàll ren jii nag màggal gi jub si kuréel liggéey gu ten gi àndaat ak seen seen bii di mu Moukhaddamatoul Khidma ñu war a ñëw ci ay jotaay yoo xam ne nii dañ ko war a def jotaay bii nag di jotaay bu njëkk ñu war cee ànd ak suñu mbokk di sëriñ Ibrahima Khalil Mbacke doj di ndaw di boroom xam-xam di gëstukat bu yaatal ab gëstu lool ci sëñ bi ak ci njàngaleem sëñ bi ak ci dundu sëñ bi tey jii nag ñu war a tàmbali jotaay bu njëkk bi moo war ñoo waxtaanal ci may yi nga xamee ne sëñ bu mag bi jëlee na ko ci tukki bi nga xamee ne moo waral tey ñuy waaj def wala ñuy def bis bu màgg bii nga xamee ne moom la jub si te mooy màggal ak ku xam ne sëñ bi li nga xamee ñun moom lañuy ñuy màggal mooy jug gi nga xam ne jugoon na ko di ko liggéeyal yonent bi alayhi salaam ci tukki boobu dama jagaboo tukki boobu nag kon mu nekk juróom-ñaari yu teg ay weer warees naa mën a xam bu baax nag yan may la ko ci suñ borom may loolu incha allah dañ ci ànd ak suñ mbokk suñu Xalil Mbàkke doj moo ñu ci indil ci may yooyu noonu kon bu la ci waxtaan wi dañuy nuyu suñu Xalil mu woon a mbokk yi ñu bàyyi xel fii ci seen chaîne Moukhaddamatoul Khidma TV bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli laqin lisaani waxlulan minhu lxuqad wajaalhu daakiran wa saakiran abad asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nooy nuyu bokki jullit yi ak bokki taalib yëpp ak fu ñu mën a nekk waaye di jiital ci suñum nuyoo ak sunub siyaar maolaana cheikh mouhamadul muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér di nuyu bokki jullit yëpp di leen ndokkeel ci weeru tedd yi nga xam ne ci lañu nekk muy weeru safar ak bis bu màgg bi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam nu koy waajal du ci ndokkeel jullit ñëpp rawatina taalibe yi euh, sëriñ Cheikh noo lay nuyu bu baax di la siyaar bu baax waaye du nuyu mboolem waa daayiratul muxaddamatul xidma ak mboolem waa kuréelu liggéeyal ku tedd gi noo leen di siyaar bu baax ak fu mën a nekk jërëjëf. ok suñ xalil kon ñu ngi nuyu mboolem membre yi nga xamee ne teew nañ ci plateau bi. ñu tuddee sëñ Sam Bousso Abdoul Wadoud sëriñ Abdoul Ahad Mbacke borom Belal Bachiru Modou Xabaan sëñ Maam Thierno Diop ak sëñ Hamdi Mbacke Lazamba moo yóbbaale mboolem mbokk yi nga xam ñu ngi bokk ci kuréel gi. nga tàmbali nag suñu laaj suñu xalil wala sax dañuy ñëw rek ci jotaay bi mooy bëgg nañoo xam daal ci jotaay bi nii may yi nga xamee ne sëñ bu mag bi jëlee na ko ci tukki géej gi. nga xamee ne moom wax na ci fu bëree bëree bëri ci ne tukki bii nii tukki yoon boo xam ne mënut ñàkk ci ak dundam ngir ci digganteem ak boromam ak ci digganteem ak nit ñi kon nag dana baax ñu xam ba muy dem laata muy dem fan la tolloon ak ba mu ñëwee fan la toll incha allah ñu war ci ànd ak yow suñu xarit. ok jërëjëf sëñ Cheikh ci laaj bu am solo boobu nga xam ne moo ëmb li ñuy bëgg a waxtaane muy li nga xam ne moom la sëriñ bi jële ci tukkeem bu tedd boobee loolu nag muy waxtaan wu am solo woo xam ne bokk ci waxtaan yi ñu waajale bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal si te ku nekk xam na ne bis bi li ko waral mooy tukki bu tedd boobee nga xam ne moom la sëriñ bu tukki woon mooy sawa bu màggal gi nga xam ne moom la ñuy waajal màggal tukki boobu nag ni nga ko waxee sëriñ bi wax na fu baree bare waaye ne mëntoon na ñàkk ci moom suñu bëggee waxtaanee li nga xam ne moo waral tukki bi nag wala suñu bëggee waxtaan li nga xam ne moom la sëriñ bi jóge jëlee ci tukki bi dana baax lool ñu xam lan moo taxoon sëriñ bi dem ndax day mel ne dem gi ci tukki bi am na lu ko waral loo xam ne bu saahir lañ ko war a tudde mooy loo xam ne ak loo xam ne itam sababu baatin la maanaam loo xam ne diggam ak boromam mu mel ne bu saahir bi diggam ak tubaab bi lu ñu baree bari xam nañ ko ak ni mu demee sawu baatin bi itam lu ci bari xam nañ ko waaye loolu ci dëgg-dëgg mooy li nga xam ne moo ëmb lii nga xam ne moom la ñuy bëgg a waxtaane ndax suñu nee sëriñ bi lim jëlee ci tukki bi kon day waral ne tukki bi am na lu ko taxoon a jug mooy ba muy dem ci géej gi am na lu waral dem gi ci diggam ak boroomam am na lu ko taxoon a jug loolu ci lañu mën a dégg ne kon ndax la ko taxoon a jóg jëlee na ko foofu wala jëlewu ko ak la fa jëlee day delloowaat ci li ko taxoon a jóg sëriñ bi ku nekk xam na ne ci ak njëlbeenam moom ci bopp moo wax ne dafa jug rek tàmbalee xeeñ ci boromam mooy bëgg a àgg ci boromam euh, def yittam yëpp ci xam yàlla ak yegg ci yàlla ak nekk dëgg-dëggi koo xam ne yegg na ci yàlla ci dëgg-dëgg na mu ware loolu sax moo tax muy wax naan mu asal mun su xaqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taay ba nga xam ne nee na ba ko yàlla joxe am xel rek ci la tàmbalee di xeeñ ci borom ak bëgg xam ak bëgg xam borom mm. loolu moo waral bi nga xamee nekk naa ko waajuram mu tàmbali di ko xeeñtu ci moom di jël wirdu yi nga xam ne moo mooy wirdul xaadir jële ko ci waajuram ba nim jaaree ci mboolem wirdu yi nga xam ne moo fi amoon booba muy wirdu tiijaan ak wirdu saasaar yi ak xaadir gi nga xam ne ci la tàmbalee loolu lépp da ko boole woon ak di xeeñtu boromam képp ku mu dégg ci ak moom ci moom ci ak mbaax mu dem fa ngir jàpp ne mën na faa yegg ci boromam ba yegg na ci sax àgg di siyaare barabi wàlli yi nga xam ne ñoom dundatuñ ci kaw suuf ngir di fa xeeñtu jàpp ne waras na ko mën na ko yeggale ci yàlla nga xam ne dafa mel ne daal ku maroon marawu metti ci diggam ak boromam boo xam ne daa goon ci tuñ-tuñ yi ci buntu bu nekk mbëkk fa ngir jàpp ne foofu mën na ko yeggale ci boromam loolu ku nekk ci njëlbeenam ci loolu la tàmbalee ngir ngir jéem a sàkku loolu nag day mel ne bi muy dem ci gi loolu lenn la ci yi nga xam ne tax na koo dem ci géej gi mooy ngir yegg ci yàlla nam ci war a yegg dëgg-dëgg ak mooy kamaalul maxrifa dëgg-dëgg mu am ko diggam ak boromam kamaalul wusul loolu bokk na ci yenn yi nga xam ne tax na ko dem jógee ci ndax ginaaw bi nga xamee ne jaar na ci yoon yu bari ngir xam boromam dafa dem ba ci ab digg mu xam ne yoon yim jaar yëpp maanaam lam ci bëgg mënu ko caa am ndax xëy na càllal gam ci war a am ak nam ak ak jekk jokk gam ci war a am xëy na amewu ko ci noona mu bàyyi mboolem yor wirdu yim yoroon yëpp jàpp ci alxuraanu karim soobu nag ci diggam ak boromam waaye di wur bunt bi nga xam ne moo koy yeggale ci boromam loolu mooy ginnaaw bi nga xamee ne jaar na ci wirdu kon mën na naa gis ne bokk na ci li ko tax a dem ci géej gi mooy mu yegg ci yàlla dëgg dëgg yegg ci yàlla waaye xam yàlla dëgg dëgg yegg loolu benn la ci yi ko taxoon a jóg bokk ci li ko taxoon a jóg itam doon liggéeykatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ci boppam day wax ne ci njëlbeenam rek dafa jug rek maanaam xelam ak xolam ak lépp ne ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay wax sax na awalu mabtada bihil xadimu taalluqun bi man lahu taqdim waaye ci lay dem ba naan wa asaral xidmata ama jaysa si waaye wa xalbuha admaraha min asasi nga xam ne ci asas bi mu sosee yoonu murid rek ci la tàmbali xelam nekk ci liggéeyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni mu àggee ci xaama jay kon bokk na ci li nga xam ne moo ko yëkkati woon doon liggéeykatu bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu tam gis na ne bi muy nekk ci réew mi ngir defe ko na am ko war a yomb ci moom ndax boobu yegg na ci fu mu nekk nit ñi di ko fekk mm-hmm. ba nga xam ne la liggéey bi laaj ci ak wéetaay ak bariwaay faawu dana dem barab boo xam ne kenn du ko mën a fekk ba ci lay wax sax ne kore gi nga xam ne moom la mujj julli ci Touba rek yeggoon nañ ci di xëccoo der bi muy julloo ba àgg ci di gaayante ndax nit ñu bari mu gis ne nag lim lim làmb ci xolam ci bëgg a liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam faaw mu dem ci xam ne fa la ko mën a defee boo xam ne du am benn gàllankoor kon bokk na ci a jóg bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mënees naa wax bokk a jóg itam bokk ci ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci nga xam ne dañuy ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam àddina ak alaxira bokk ci mbooloo mi koy dar muy waa ahlu badar yi nga xam ne ñooy dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mën a jëm te loolu Cheikh Abdoul Ahad yal na yàlla yokk ay leeram moo ko nettali ne sëriñ bi bi mu nekkee xalwatu ci Daaru Xuduus ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko sëriñ bi da ko wan ak bëggam ak xeemem téefam ci bokk ci mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak moom ndax boobu wax na ne bi muy gis yonent bi sallallahu alayhi wa am na lu doxoon diggam ak yooyante bi moo tax mu amoon xeemem téefu ñi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara ko jege ko mu am xeemem téefu bokk ci loolu ba xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeemem téefam yonent bi nag xamal ko ne ko daanaka lu xaw a jomm la ndax jamono ji weesu na barab yi ñu ko defee weesu na ak itam natt war a àndal waaye sëriñ bi ci ak bëggam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bokk ci ñooñu tax mu ne ko bakkan bi laa bindut ba xuma fu mu yem waaye fit weeg jom ji moom ah, sunu maanaam am na ko mm-hmm. ba si ñente gi yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne loola bokk ci ñooñu bokkoon na ci kon li ko tax a dem ci li ko tax a dem ci géej gi manees naa wax ne sëriñ bi naka jekk dafa amoon yéene li ñuy wax jihaad ak gàddaay jëm ci boromam naka jekk ba mu jugee rek dafa amoon wéetal boromam bàyyi lépp jëm ci boromam gàddaay jëm ci yàlla waaye jihaad ak bakkanam jihaad ak noonu yàlla itam ngir jëm ci boromam moo tax mu naan jahaatu bil xatti jahaatu bil xatti si na wax di ak jahaatu bil xatti adu wallahi hasrata ahwaamin kon yooyu itam bokk na ci li nga xam ne moo ko taxoon dem ci géej gi bokk na ci li ko taxoon dem ci géej gi itam tam wax ko ci waxal ko boppam wax ne ay daraja yoo xam ne suñu borom bëgg na koo dolli ana ak mooy sababu xaybatiya anna allaha araada an anaala minu jaaha nga xam ne daraja yu ko suñu borom bëgg a jox ak bëgg koo def muy xaadimu rasul ak bëgg koo def itam muy koo xam ne mooy xeet li aw xeetam àddina ak alaxira yooyu bokk la ci li ko tax dem ci géej gi ndax mi ngi dugg ci ñeewante gi nga xam ne am na ko ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom sëriñ bi mm-hmm. loolu itam nga xam ne fu nekk ci ay nekk na fa taxaw ngir wane ñeewante gu am ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin boo demee ci xasida ak Matlabu Chifa nga xam ne lépp lu jëm ci xeetu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam muy dox seen diggante ak seen borom ci mel ne ku doon seen avocat kon ñeewante gum ñeewante xeetu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci xeet leen àddina ak alaaxira bokk na ci ko taxoon a jóg kon dañuy gis ne bi sëriñ dem ci géej gi li nga xam ne moo waral dem ngi ci mbirum biir muy mbirum muy sababu sababu baatin ay mbir la yoo xam ne diggam ak boromam la mm-hmm. moo ko taxoon a jóg moo waral tukki bi te loolu ku nekk xam na ne bi mu demee ndar ba dajeek alaaji Ahmadou Ndiaye Mabey ca mu àndoon nag magi ya ngir di ñaanal sëñ bi intervention ngir bëgg wane ne ku ñu tooñ la koo xam ne li mu nekk ak liñ koy njort liñ koy tuumal du benn sëriñ bi ci la ko wane woon asiru mahal abraar yi xamal ko li nga xam ne moo dox diggam ak ñoom xamal ko ne tukki bii diggam ak boromam la mi ngi dem mi ngi ñëwaat mi ngi ko fekk kon dañuy gis ne buñ bëggee waxtaane may yi nga xam ne sëriñ bi jëlee ne ko ci géej gi day baax lool ñu xam li ko taxoon a jug maanaam ba muy ci géej gi fa mu tolloon ak àggoon na ci moom daraja ju daraja ju kawe ju digg mag boromam waaye am na lu ko dese woon loo xam ne dem liggéey li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko mën a may ci ndigalul boromam moo tax bu ñu bëggee dikk ci li nga xam ne sëriñ bi jëlee na ko ci géej gi mënees naa wax ne li ci ëpp du luñ mën a xam loo xam ne mënees naa jàpp ne lii la ndax day mel ne diggam ak yàlla ak yonente bi la moom sëriñ bi moom wax na ne bari na loo xam ne euh, ump na mbindee fi mm-hmm. wax na ne lim jëlee ci diggam ak boromam nekkul sax ci li ñuy wax alkawnu alkawnu bu ñu ko wax mooy adduna bi mooy monde bi xel mën a yem mooy inna lesi minal ilahi hustu xaaba anil kawni la wax te alkawnu lu mu gudd gudd mëntu génn kawnu wax na ne moom lim làq ci diggam ak boromam mooy fàdduna kon liñ ci mën a jàpp rek mooy li nga xam ne moom ci boppam moo ko bindal boppam wax ne lii sunu borom joxe na ko ci tukku mu mel ne xëy na loolu la ñu ci bëgg xamal moom sëriñ bi loolu la ñu ci bëgg a xamal ñu mën ko ca xam waaye la ci ëpp diggam ak borom loo xam ne mënees su ko xam mu wax ne nag moom euh, li bi muy dem ci géej gi yegg na ci maanaam ay mébét ak yooyu mu wax nga xam ne àgg na ci nee na jël aw yaramam di ko di ko di ko dagg sax moo gën a sedd ci li mu ñàkk li nga xam ne moom la bëgg te loolu sëriñ Abibu Mbàkke nett li na wax ne euh, bi sëriñ bi sëriñ bi ma wax ne bi muy dem ci géej gi booba dafa mel ne ku dajee koo xam ne da ngay jaay parfum mooy xeeñu ci xet ga nga dikk nag nit ñi nga dajal ku nekk naan la may ma ci sa parfum bi te yow mu wóor la ne amoo parfum kon ne la fay des tey jom rek mooy juguti parfum mooy boobu foofu la yeggoon moo tax euh, mu wax ne bokk na ci la mu ci jëlee kamalul iman ak kamalul islam ak kamalul ihsan waaye li ñuy wax dëgg-dëggi al ubudiya nga xam ne mooy dëgg-dëggi nekk jaamu yàlla boo xam ne suñu borom day nangu sang jaam wax ne loolu mi ngi ko jëlee ci biir tukkib géej gi li ñuy wax kamalul ubudiya ak li ñuy wax xaqul yaqin mooy dëgg-dëggi am kóolite sa digganteeg seen borom waaye li ñuy wax xaqul maarifa muy dëgg-dëgg xam yàlla ak li ñuy wax xaqul wusul muy dëgg-dëgg yegg ci yàlla ba mujj nekk ab dëkkaaleem mujj nekk ab xaritam mujj nekk ab so ab soppeem loolu nee na mi ngi ko jëlee ci euh, biir tukkib géej gi lay wax naan sabata kawniya xalilallaahi billaahi sarmadan xabiballaahi nga xam ne mujj naa ci lu sax sax goo xam ne day sax ba faw mm-hmm. doon xaritub yàlla waaye doon soppeeb yàlla wax itam ne saxaadat bi xayri mahwin kutibat wa kawni yal abdal xadima xat sabat mooy nekk gi ma nekk jaamab yàlla lu saxla loo xam ne sama borom kon nee na dañuy wax dëgg-dëgg xubudiya nga xam ne mooy daraja ji gën a kawe ci ab jaam ci diggam ak boromam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la sunu borom gën a fonk ci lu mu bind euh, tur yi mu koy woowee te muy daraja ji gën a kawe ci moom mooy mu ko sama jaam moo tax mu wax subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al kon daraja jooju mooy daraja al ubudiya goo xam ne day mat sëkk ci diggam ak jaam bi ci diggam ak boromam suñu borom itam nangu nekk gi mu nekk ab jaamam loolu sëñ bi nee na daraja jooju mi ngi ko jëlee ci mi ngi ko jëlee ci tukkib géej gi kon mënees naa wax ne loolu lenn la ci li nga xam ne sëriñ bi jëlee na ko ci tukkib géej gi bokk na ci lam ci jëlee itam nekk liggéeykatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi gën a kawe nekk euh, liggéeykatu yonente bi sallallahu mooy li ñuy wax darajey xaadimu rasul nga xam ne xaadimu rasul daraja la daraja joo xam ne sunu borom daf koo bind gaaral ko nit yàlla yëpp waaye jagleel ko Serigne tuuba ci càkkuteefu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ndax su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf koo bind jiital ko ci jaam ñi ci luutu benn sabab bind ko itam bëgg ko ci luutu benn sabab wax ci alquraanul karim ne moom yàlla ak ay malaakaam day julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal jullit ñëpp ñu julli ci moom donte benn yoon la jullit bu nekk faratal ci moom mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tàgg ko ci alxuraan itam ci wa innaka la ala xuluqin azimin ak ay tàgg yu baree bari ci biir loolu nag li muy wane mooy day wane ne sunu borom ku am cofeel la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te itam ku bëgg ku julli ci moom la donte julli gi benn yoon la waaye loo ko gën a baril mu gën a neex sunu borom naka noonu itam tàgg gi loo ko gën a baril mu gën a neex sunu borom mu mel ne nag jëmmi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jëmmi tagg ko ñaar yooyu la suñu boroom jël def ko tudde ko xaadimu rasul ci góor yàlla yi nag faawu day am koo xam ne moom la ko ki ci nangoo wuutu suñu borom mooy ki nga xam ne moo nangoo jaayante suñu borom wuutu ko ci matal ñaar yooyee kooku mooy jël garaatu xaadim rasul loolu nag dafa wax ne bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xool na xol yëpp gis ne moo ko ci gën a bëgg dafa sàkku ci suñu borom mu def Serigne Touba muy xaadimu rasul mooy mu ràng ko service boobu ngir mu matale ko loolu lay wax raama rasulullahi min ilaahi kawni xadimuhu wa abdullahi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo sàkku ci sunu borom ma doon ab liggéeykatam loolu tax nag sëriñ bi itam wëlbatiku daf yitteem jëpp muy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci salaatu sitta bi madihi sitta taatihi batta mahadisaay muy xaaj dundam gépp lii mu jagleel ko julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii mu jar liggéey ba def ci loo xam ne moom ci boppam wax na ne képp koo xam ne yaakaar nga ne man ngaa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel ne li ma ko liggéeyal sa njort loolee maa ngi koy dàq ci ne man mii maay liggéeykatam bi gën a mat maay liggéeykatam bi gën a kawe man sanna ma man sanna annahu yakuna abada yurdihi ka xidmati bada nafaytu sannahu bi anneel xadim bi maa wana an mislihi kullu xadim mooy liggéeyal naa ko loo xam ne képp kuy ab liggéeykatam lott nga ci liggéey lu mel noonu waaye itam faraxtuhu bi xadamin laasaaniya laha min alxidami laysat fane liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne doo am ab ñaareel ba mukk mooy defal naa ko loo xam ne kenn mënut def lu ni mel waaye def naa la defal naa ko loo xam ne itam am ñaareel moo ne itam ne moom mooy xayra xadim mooy ngën ji liggéeykatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon daraja jooju muy xaadimu rasul mooy liggéeykatu bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne garaat boobu suñ borom moom la ko ràng mu matale service bi ba suñ borom jox ko ko ba nga xam ne kenn mën laa wax ne la at sàngam ci la sëriñ bi tudd xaadimu rasul wala kenn ko ko tuddee waaye day garaat boo xam ne service la boo xam ne da ko matale ca na mu waree dëgg dëgg dëgg suñ borom jox ko garaat boobu loolu itam sëriñ bi nee na mi ko jëlee ci liggéey euh, ci tukkib géej gi ci la jëlee euh, garaatu xaadimu rasul boobee mu waxaat ne itam ci tukkib géej gi ci la jëlee mbootum alxuraan mooy ci ko suñu borom joxe alxuraanul karim waaye joxaale ko mbóot ma joxaale ko itam leer ga ak lépp loo xam ne sekkarab alxuraan la mm-hmm. nee na mi ngi ko jëlee ci biir tukkib géej gi wax na fu baree bari ne mallaka nii mallakani alquranu rabbul alamin waxaadahu al aminu wal amin wax na itam ne aataaniya sikra al hakima samadu waxaadahu muhammadu may gi ko suñ borom may alquranul karim indi na ko ci waxin wu baree baree baree bari indi na ko indi na ko ci noonu indi na ko itam ci wane ne suñu borom moo ko sa alquranul karim baat par baat nga xam ne moo ko jàngal ginnaaw bi nga xamee ne nee na da ko tërbiya goo xam ne melawam ko tarbiya waxuma la nit di ko xam waaye mëntu toq ci am xel rabbaytanii tarbiyatan lam taxturi bi baali saxsin suntani an xatari mhm. nee na ginnaaw bi ko suñu borom tarbiya tarbiya gu mat googee ci la ko sa alquranu karim njëkk koo sa baari mooy laqantani laqantani yaa malikil alfasa mhm. nga xam ne jëmmi baat alxuraan nee na suñu borom moo ko jàngale boppam di ko sa baat par baat moo wëlbati ko waat ne suñu borom ji boppam moo ko sax jëmmi maani alquran yi mooy moo ko moo ko jàngal maani nga xam ne lépp lu aju ci alquran nee na suñu borom moo ko sax euh, nga xam ne may gi mu ko may alquranul karim loolu buñ ko xoolee ci saahir dañ koy gis mais dañuy gis ne alquranul karim fi ko sëriñ bi fekkoon bi nga xam ne ci lay ñëw nga xam ne daanaka xeetu ñi ko mokkaloon dañ ko daan dañ ko daan yalwaanee ka taaxuraane hmm. ngir nit ñi di leen taasu ñuy way alxuraan mu doon ay taas yoo xam ne ñeen taas di leen jox dara bi sëriñ bi ñëwee nag dafa wax ne ñi nga xam ne ñu fi téye téye alxuraan bañ fekk ko fi day maanaam mëtuñoo yedd ak donte niñ ko doon defee juyoo naag ni mu war a nekk. Mhm. daan ne mi ngi mel ne rek koo xam ne aw naaru góoram da koo réer façon naaru góoram da koo réer mu war ba sonn gisu ko waaye mu dem fekk ko ci am pénc ñi yeew ko mu yooyu lool nee na jekki nag nekk fa di jàmbat yooyu mu yooyu amul solo la am solo mooy sant ña leen ko ña ko téyel ba nga mën ko faa fekk mhm. foofu la sëñ bi fekk alxuraanul karim bi mu ñëwee. mu yeesalaat ko fonk ñi nga xam ne ñoo koy jàng ak ñi ko mokkal képp ku ko mokkal nga am ci moom wàccuwaay bu rëy rëy boo xam ne kenn du ko am ci moom ak loo doon doon ndaw boo mokkale alxuraan am ci moom wàccuwaay mag di teral ñi nga xam ne ñoo ko mokkal waaye ku bind ab kaami indi koy yi mu teral la teraanga joo xam ne di nga ci mën a dund at wala lu ko ëpp boole kook moom ci boppam mu wut ay bindkati boppam yoo xam ne lii seen liggéey mooy bind alxuraanu karim mm-hmm. waaye wut ay nit ñoo xam ne lii seen liggéey mooy xëy di jàng alquranul karim moo tax suñu musaaka di wax naan boo féetuwoo di ko bindal mu féetuwoo di la dundal boo koy bindal di ko bayal muy sàkk ñuy bay di la jox nga xam ne ay bindkat la am boo demee ci sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana day wax ne sëñ bi xëy na bis boo xam ne ci njaareem jëndandoo na juróom ñetti téeméeri kaamil mooy huit cent kaamil sëñ bi jëndandoo na ko benn bis ngir bëgg alquranul karim loolu nag ba suñ jonni yàlla tey ji boo gisee tey mën nga ne alquran ni ko waa karam yi def doo gis feneen waxuma sax ci biir réew mi waaye man nga ne bëriwul fu am ci ni nga xamee noonu lañ koy jàngee ak ni daaree alxuraan bëree ci dëkk bi wala ci dëkk mboolem penc penc murid yëpp ak itam xale yi niñ koy gaawee mokkal ak ni ñuy bindee alxuraan ji ak ni ñu koy mane loolu day loolu mu wax ne suñu borom jox na ko barkeb alxuraanul karim loolu da koy firndeel ku xam na ne dëkk bii ñu nekk muy Touba wala mboolem dëkk sëriñ bi li alxuraan di di doon kiimaan kiimaan ak li muy rëy rëy rëy rëy day mel ne mokkal alxuraan doonu fa kiimaan ndax niiwaana nga gis ko am fukki at ak juróom ñett koo xam ne fa la juddoo ba àgg foofu te mokkalu alxuraan loolu nag yomb gim yomb gim yomb ak jàppandi gim jàppandi ci ñoom ba nga xam ne ku jàng mokkal ko euh, day mel ne barkeb alxuraan bi ko sëriñ bi bi ko suñu borom jox ak may gi mu ko may alxuraan def ko muy ndénkaaneem te sax wax na ne suñu borom ci boppam moo woo alxuraan ba mu ñëw mu ne ko na nga taqoog sëriñ sëriñ bii te bul teqale kook moom wax sëriñ bi ne ko alxuraan mii nang ma ko wattul tabul bul teqali moom loolu sëriñ bi da koo bind ne sëriñ suñu borom moo ko def hmm. moom bi tam mu wax ne alxuraan moo sellal ak dundam maanaam safar xayaati bi kitaabillahi walastu taarikan lahu wallahi hmm. nga xam ne du ma tàqale ko moom mukk wax na ci lu baree bare ci diggam ak alxuraan nga xam ne alxuraanu karim dafa mel ne mujj dafa mujj doon jëm jëmm joo xam ne dafa ànd ak moom nga xam ne yëmatu ci mel ne nekk ab téere ni ñu ko xamee waaye day mel ne suñ borom da koo def jëmm joo xam ne da koy wéttali fu mën a nekk muy nekk ak moom di dund ak moom taqoog moom taqoog woo xam ne day mel ne ñaari ñaari jëmm yu ànd loolu nag sëriñ bi nee na mi ngi ko jëlee ci biir tukkib géej gi euh, ci la jëlee suñu borom may ko mbootum alquranul karim ak leeruk alquranul karim ak barkeb alquranul karim waaye jëm jëm jëm jëmmi alquranul karim tam dénk ko loolu nag am na déggin wu yomb woo xam ne mayees na ko cee dégg mooy ndax yàlla dafa ci alquran ne maa koy wattu innaa nahnu nazzalna zikra wa innaa lahu la haafizun loolu nag wattuñ wi suñu borom day sàkk ay nit ñoo xam ne day jël seen i dënn def ci alxuraanul karim ñooñu la suñu borom di wattu ci ñoom alxuraan nga xam ne bu alxuraan raafoon ci àddina ñu mën koo bind loolu nag day mel ne ñooñu ñooñu bu ñun xool ci àddina ñi gën a wattu ci seen seen i alxuraan day mel ne waa këram la ak i ñooñam kon day mel ne sàmm gi ko yàlla sàmmul alxuraan ak dénk ki mu ko dénk mhm. loolu boo ko xoolee ci saxeer da nga koy gis mhm. kon nee na mbóot moom mi ngi ko jëlee ci tukkib géej gi mhm. mu wax na itam ci biir tukki bi ci la ko suñu borom joxe ñett maanaam mu du xaadir ak wirdu saasaal yi ak wirdu tijaan yi ci jaare ko ci yonente bi sallallahu alayhi mu sakk ko ba noppi itam jox jox jox ko mu am ci ndigal mm-hmm. loolu lu yomba dégg la ndax euh, ki nga xam ne moo dond yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf mm-hmm. day don daale mbooleem xutbu samaan yi fi mas a jaar ci diggam ak yonente bi sallallahu alayhi seen mbóot yi ñu doon da koy dondaale mm-hmm. te ngir mu mën a ngir mu mën a doon seen mbóot yooyee faaw moom lu wér rek lay lu wér rek lay la gën a wér ci ñoom loolu lay yor mm-hmm. te ku nekk xam na ne muy wurdu yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ci jokkalan jokk jokkalante yi mm-hmm. am na yu bare bari yoo xam ne xay na dox na ci diggante bi mm-hmm. ba tax na moom ngir mu mën a yor la ca gën a wér faw da koy jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax donn gi mu donn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ciy boolaale donn ñi nga xam ne ñoo ñëw ci ginnaawam ci ay xutbu samaan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa jébbal ko mboolem awraat yi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane yoroon moom la Cheikh Abdou Khadir Jilani yoroon ak Abul Hasan As-Sazali mm. loolu nag sëriñ bi ci boppam daana ko joxe mm. mooy daana am ñoo xam ne daana leen ko jox mm-hmm. ba am na ci lenn ci ñoo xam ne sax dañoo yoroon wirdu yooyee ginnaaw bi ñu déggee ne sëriñ bi ñibbisi ne dañu xam ne sëriñ bi jëlee na ko ci yonent bi sallallahu alayhi dañoo ñëwoon ci moom di ko yeesluwaat ngir am càllala gu gën a gàtt seen diggante gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. am na ñoo xam ne dañoo ñëw ci di yeesluwaat al wirdul maxuus bi nga xam mi ngi ko jëlee gànnaar ngir càllala gu gën a gàtt mm-hmm. waaye ci géej gi daal la waxe ne ci la ci la dondoo mboolem tarixa yooyu weesu woon den dond seen wirdu waaye jële ko ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne borom tarixa yooyu nga xam ne seen wirdu yooyee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy firndeel te bu Cheikh Ahmad Tidiane Serif ne wirdu mi ngi moo ko jox wirdu Cheikh Ahmad Tidiane mi mi ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi mm-hmm. am ci ndigal li nga xam ne moom la ci Cheikh Ahmad Tidiane am mm-hmm. kon loolu itam nee na mi ngi ko jëlee ci maa lu euh, daraje yi ñu am ñett yurdu yooyee mi ngi ko jëlee ci biir tukkib géej gi euh, ci la ko suñu borom joxe yurdu yooyee waaye ci la ko dénk itam alxuraanul karim sëriñ bi itam nee na ci biir géej gi ci la sama borom yëkkatee samay daraja ba ma mujj mel ne ab jant ci ak leer ak yëkkatiku mooy maanaam ci la borom yëkkatee samay mbir yëkkati samay daraja ci biir euh, mbindeef yi waaye yëkkati samay daraja itam ci biir maanaam ci biir àdduna ak alaxira ci malaaka yeeg ñëpp ba nga xam ne darajaam dafa yëkkatiku ba ni nga xam ne ab jant noonu la yëkkatikoo leere noonu kawee noonu nee na suñ noonu la noonu la sama mbir mujj mel te loolu boo demee ca euh, Cheikh Saadou Abi ba muy ndokkeel sëriñ bi ci ñibbisi ga mhm. wax na ci lu mel noonu wax na ne mhm. ba muy dem mhm. daa meloon ne aw weer waaye bi mu ñëwee dafa mel ne ab jant bi muy fàddu boobu daa mel ne aw weer waaye bi mu ñëwee dafa mel loolu itam sëriñ bi nee na daraja jooju suñu borom ma ngi ko joxe ci euh, ci géej gi mujj itam def mboolem weer yeeg bis yi ñu mujj doon ay jëmm yoo xam ne dañuy ànd ak man di ma di ma di ma seere mhm. ne loolu itam mi ngi ko jëlee ci géej gi wax ne tam ne ci géej gi tam ci la jëlee daraja jooju nga xam ne moom loon sàkk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax bi mu dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa léegi ne mhm. da doon sàkkoo bokk ci waa ahlu badar euh, bokk ci ñi nga xam ne ñooy dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi wax ne yàlla defal na ko daraja joojee yëmu ci boole ko ci waa ahlu badar waaye da ko da cee boole seen yool yi ñu amoon ci mboolem xare yi ñu mas a xare mhm. leneen ci yàlla fay yàlla da koo joxaale da koo joxaale mhm. mooy seen daraje yaag seen yool yi ñu am bi ko yàlla di boole ci waa ahlu badar da koo da koo joxaale da koo joxaale daraje yooyu boole ko mhm. nga xam ne wax na fa bëree bëri ne euh, yàlla ci boppam boole na ko ci waa ahlu badar xadaniya llaahu min ahli badari wala xadaniya llaahu min jundil xaalibin lim na fu bëree bëri ne yu sayir nii ka saxaab kal aali wa saxaabi sarmadan nga xam ne yàlla mujj na ma boole def ma ni saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mujj nekk dëkkaale bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye doon ab soppeem doon ab xaritam kon eh, am daraja yi eh, ñi na ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amaale seen yool yi ak seen tuyaaba yu rëy ya nee na daraja jooju mi ngi ko jëlee ci géej gi te loolu bind na ko fu baree baree bari wane ne eh, ci ñoom la bokk mm-hmm. mu wax itam ne bokk na ci yi nga xam ne sunu borom defal na ko ci tukkib géej gi mooy naaguloo iblis yi moom mooy ku ne xam ne ne iblis mooy noonu yàlla bu mag boobu nga xam ne euh, sunu borom da koo jox kàttanuk wéetal ko ci jaam ñi muy dox seen digganteeg aw yiw wala dox seen digganteeg dox seen digganteeg lu baax mm-hmm. iblis moom na nga xam ne kàttanam daanaka kenn tëwu ko waaye ku du bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne suñu borom daa xar ab dënnam génn ci cërub seytaane mm-hmm. sëriñ bi nag nee na yàlla moo dox diggam ak seytaane naaguloo ko ci moom ba iblis ci boppam jàpp ne pexe ci Sëriñ Tuubaa mm-hmm. yesaminallaahu hamda jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaawale loolu sëriñ bi wax na ko bu bëree bëri wax na sax ne sama xalima rek yegg naa ci su ma yëkkatee di bind iblis day daw su ma yëkkatee di bind su ma yëkkatee sama xali sama xalima di bind iblis day daw woon ma ginnaaw mm-hmm. kon daraje iblis bi nga xam ne mooy noonu bi yàlla di kat suñu borom jox ko kàttan gu réy réy ba mu wax suñu borom ne ko sa yoon wii nga xam ne mooy siraatal mustaqima danaa toog ci kaw fas yéene jengloo nit ñi la aqudanna lahum siraatakal mustaqima summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajudu aksarahum saakirina nee na suñu borom nee sëñ bi nee suñu borom dox diggante ak moom ba moom bokku ca ndax iblis naagu na ci moom mm-hmm. te loolu boo delloo ci alquranu karim dinga gis suñu borom di wax ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan mm-hmm. kon foofu baatal ibada mooy al ubudiya ndey li muy tekk foofu du caageen rek ibaad yëpp waaye ñi nga xam ne àgg nañ ci dëgg dëgg àqul xubudiya suñu borom nangu seen ibaad te moom laa doon wax léegi ci njëlbeen ne bokk na ci li sëriñ am ci géej gi tam waxal ko boppam mooy njaamu gu suñu borom nangu kon inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan loolu ñu néew a néew la ñoo xam ne mooy ñi nga xam ne suñu borom wax na ne iblis du am ci ñu aw yoon hmm. sëriñ bi wax ne loolu bokk na ci li jëlee ci géej gi waaye mu wax ne itam bokk na ci li nga xam ne euh, jële na ko ci tukki boobee euh, muy yool bu rëy rëy boo xam ne suñu borom euh, fay na ko fay na ko wax ne sax ne li ko suñu borom fay day day day day maanaam da koy jóor day sotti waaye du ko natt mu wax ne diirub li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak saxaaba yi diirub liñ sax ci kaw suuf ci ay tartar ci xeex ak di ay tar jànkoonte ko tartar seen seen seen tuyaaba suñu borom jox na ko diir bi mu nekkee ba fëli mooy diir bi mu nekkee ba fëli sax gam fa sax mi ngi yemook sax gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi sax ci ay tartar mooy lañ ci jëlee ci tuyaaba ju tol noonu nee na diir bi mu nekk ba ëffali suñu borom jox na ko ci dara ji mu wax itam ne jëlee na ci yool bu tol ne diir bi li muy sax ci àdduna bis bu ñëw ci moom bis bu mu dundate ci àdduna dana ci jëlee tuyaaba ju tol ne laylatul xadar te laylatul xadar yonent bi sala alxuraan wax ne xayrun min alfi shahri sëriñ bi ne suñu borom defal na ko ci sax gi sax ci géej gi tuyaaba joo xam ne bu nekk dana toll ci moom la tax a dara wax itam suñ borom defal na ko ci mbooleem walli yi ak mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne yu sell lañ te jëfe seen xam-xam ak nit ñu baax ñëpp mbooleem li ñu sax ci kaw suuf jaamu ko yàlla suñu borom defal na ko ci tuyaaba ju toll na ne ci yëpp jukk maanaam boo boolee mbooleem awliyaullahi yi ma a jaar ci kaw suuf yëpp nga boole seen tuyaaba yi ñam toll suñu borom jox na ko ci yool bu toll noonu ci tukki bi mu tukki ci géej gi ci tukki bi mu tukki hmm. naa jàpp ne yenn la ci yi nga xam ne hmm. sëriñ bi jëlee na ko ci ci géej gi hmm. euh, muy ay ay ay ay may yu bëree bëree bëri yoo xam ne euh, yooyu ci lim yenn la ci xam nga kii ñu yegg waaw ah. jërëjëf euh, suñu xalil ci ni mu waxtaan wi mu mel ne bu ñu xoolee waxtaan wi ubbee nga ko ci xëy yenn ci asbaab yi nga xam ne moo tax sëñ bi dem doonte xay na tuddoo lépp ngir xëy na xatu waxtaan wi moom la ba bokk nga ci yi nga wax rek mooy ni ni sëñ bi doon ne misaale ci ne bi avant muy dem ci géej gi ni meloon nga xam ne mel boo xam ne nii wala koo xam dañ ko njorte ne dafa yor parfum ñëpp ñëw ci moom fekk na ne parfum nekk ci moom léegi nag loolu nag ngir mu mën koo mën a nekk ci moom mooy mooy yor parfum di ko jaay faaw day dem tukki ci géej gi nga xam ne nee nga àgg na sax ci ne boobu mënoon a maanaam dagg aw yaramam. Mhm. ngir dem dana ko def. Mhm. kon loolu day mel ne bokk na ci. Mhm. yi asbaab yi nga xam ne xëy na tudd ko. waaye mu mel ne nag bokk na ci ne ci yi nga wax ne jëlee na ko ci géej gi ci ay may. mu mel ne daraja ubudiya nga xam ne nit ki dafay dafay mujj. jaa suñ borom su koy woo daanaka daanaka abdi sama jaam. te loolu gis nga ne mm. suñ borom bi muy tagg wala buy wax yonente alayhi salaam wala buy wax sax jaam boo xam da ko fonk ci alxuraan mm. baatam abdu lay jëfandikoo mm. ni'mal abdu innahu awaab wala subhaana alladi asra bi abdihi kon loolu lay mel ne dara ju yooju sëñ bi jëlee na ko ci biir géej gi bokk nañ ci yi mu ci jëlee tamit te nañ gis gis nañ ko baax ci waxtaan yi lu mel ne daraja joo xam ne nii mooy xaadimu rasul xaadimu rasul daraja la joo xam ne nii lu ñuy lu ñuy lu ñu lu ñuy yéegee la waaye nekkul na nit rek day wax xaadimu rasul ñu jàppee ko mi ñu yonente bi mm. waaye dara jële la xam ne ni mm. sëñ bi bokkoon na li tax mu bëgg a dem ci géej gi mm. te sëñ boroom defal na ko ko wax na ne avant muy dem ci wala sax bi muy nekk ci biir woote bi alamani rahmani fi safina bi ànd na xadimu zil madina bokk na ci yi nga xamee ne nee nga sëñ jëlee ko ci géej gi ci ay may mooy alxuraan mbóot maanaam sëñ boroom jox ki mu ko jox sëñ bi nga xamee ne wax nga ne joxe na ko ci anam yu bëree bëree bëri yu bokkul uh-huh. maanaam sar na ko sol na ko ko may na ko ko rafaatal na ko uh-huh. te loolu wax nga ci sa biir wax ne uh-huh. ni nga xamee ne noonu la ñooñam mel ci alxuraan ci di ko mokkal ak di ko wattu ak di ko bind nga xam ne bu ñu xool ci réew mi ñu ëpp li mokkal alxuraan ci ay ci ay ndaw manes naa wax ne yo taalibi suñ tubaa lañ da xam ne kon alxuraan jooju ko suñ tubaa suñ borom jox luñ mën a firndeel la ci ci ci àdduna ji ci àdduna ji mm-hmm. mu mel ne kon day mel ne mboolee may yi nga wax yëpp yëpp mm-hmm. rek mm-hmm. yaa ngi ko toxale ci mbindum suñ Tuubaa ndax moo ko biinal boppam waxal ko boppam waaye nag fi nga xamee ne moom nga gën a insister ci ne may yi nga xam ne moom la ko suñ borom jox ba ñu ñi nekk di ko waxtaane nañ xam ne xaaj bi tudd ko wala sa xaaj bi xamuñu ko ngir ne moom moo wax ne li ma làq ci ay ngëneel ci suñ boroom dafa maanaam maanaam kawnu bi nekk nii te fi mu xel mën a yem hmm. maanaam nañ xam ne ag aggu fa hmm. maanaam kon hmm. demee liñ ci jot tudd rek lañ mën a xam waaye lim tuddut kenn kenn xamul xamul nu mu toll kon daal ci ci ci ci ci ci gàttal xëy na mënees naa mënees naa waxagul mënees naa tëkkul loolu nga wax xëy nag am na yeneen ñu ci bëgg a ñëw ndax day mel ne mm-hmm. li nga tudd yu ci bëri mi ngi aju ci jëmmi sëñ Tuubaa mm-hmm. am na ci yoo xam ne yoo xam nag dafa war ci ñi xamee nag mm-hmm. xëy na ñoo ko topp ak fi mu nekkoon ci réew mi wala sax jullit ñi nga xam ñoo nekk ci àdduna bi sëñ Xalil xam naa kon ñu joxaat la rek ci nga mën a continuer bu fekkee am na des ci may yi sax ci nga boromam bu fekkee ne nag uh, xëy na waxtaan wi dafay dafay gàtt lool lool lool uh, dafa mel ne ñi nga wax ne waxtaan mi ngi xaw a mi ngi xaw a mi ngi xaw a kii tuuti rek cate xam naa dañuy jox suñu xalin nga nga nga nga àggale ci diggante minutes yu néew rek ci euh, may yi nga xamee ne euh, suñ morom may na ko ko ci xeet gim xeet li nit ñi euh, moo xam ci àdduna bi ñu nekk nii wala ci sawara ji njëm loolu moom bëgg nañ ci bëgg nañ ci indi tuuti rek ci ay xeet yi ok jërëjëf sëñ kon xam naa ni waxtu bi xaw naa gàtt donte yu bëree bëri tudd nañ ko mhm. Euh, ndax sëriñ bi sax mi ngi tudd wax ne ci géej gi suñu borom jox na ko fa juróom-ñaari euh, mbir yoo xam ne kiimtaan la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. nga xam ne moom day wane ay karaama la ci moom waaye mu'jiza la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. xam naa ci gàttal rek ndax waxtu yu mel na ne mi ngi bëgg a jeex mooy mm-hmm. wax na ne maanaam suñu borom notal na ko ay noonam bokk na ci kiimaan yi ko suñu borom defal ci géej gi mooy notal ko ay noonam njëkk muy feeñ ci kaw jamono bokk na ci kiimaan yi ko suñu borom defal ci géej gi itam xamal ko xam-xam boo xam ne nekkut Mm-hmm. ci am njàng maay jugewul ci am njàng waaye waxaytu xelman laa yuraa fil kutubi ak waxaytu xelman lam yakun fi sadri mm-hmm. wax itam ne suñ borom defal na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day pookarewu ci kanam yonente yi ci des mm-hmm. ci liggéey da koy pookarewoo ci kanam yonente yi baaxa rasulullahi kullal anbiya bi xurbati xasana si ne wax itam ne suñ borom def na mboolem sopp la na mboolem malaaka yi ñu bëgg ñu doon ay soppeem wax itam ne mbooleem jinne yi nga xam ne ay jullit lañ suñu borom def nañu nekk ay soppeem ba ñi ci jamonoonteeg moom sax euh, moom ci moom lañ aju mhm. mooy bi yata'allaqu allazina aslam min jinni xasri wax itam ne képp koo xam ne suñ borom namm na ci moom ak texe mhm. yàlla def na dana ko bëgg mooy képp koo xam ne yàlla namm na ci moom ak texe suñu borom dana ko dana ko bëgg loolu nag lenn la ci yi nga xam ne sëriñ bi lim na ko mhm. bokk na ci itam njëriñ yi nga xam ne jëlee loo xam ne li mu wax ne icaxal rujuuxi ilaa xaw mi saadatana mhm. wala tak fi naa yow ma jamee xalxi niiraana nga xam ne sëriñ bi day naan ñaan tukkeem bii nekk aw yiiw ak ci mbooleem julit ñëpp yi nga xam ne ci la ci lañ ci lañ jóge mhm. naa ne tënk rek ma des naa wax ne euh, ci gàttal daanaka waxtu bi dañoo xaw a tënk waaye liñ mën a liñ mën a liñ mën a tënkee ci waxtaan wi ci li nga xam ne moom la sëriñ bi jëlee ci géej gi mënees na tënk benn muy daraja ji nga xam ne jël na ko ci boromam muy diggam ak boromam mm-hmm. waaye xeet li nga xam ne xeet li na ko aw xeetam mm-hmm. te mooy fexe ba nit ñi am liberté ak jaamu yàlla mm-hmm. te ko nekk xam ne réew mi bi sëriñ bi dem ci jamono jooju mooy ci wàllu ci wàllu jaamu yàlla ko bëgg doxee ñàkkoon nañ ci liberté ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon yilif réew mi sëriñ bi nag li nga xam ne moo moo ko taxoon di jug mooy nit ñi mën a jaamu yàlla ci seen coobaree bopp te loolu day mel ne eh, maanaam bokk na jeexit gi gën a rëy ci réew mi ndax ñi ko fi jële woon tey li nga xam ne moo taxoon ñu jëlee ko fi. day hmm. mel ne loola tey la gën a jëm kanam. Hmm. kon day mel ne ñoom échec nañ ci yóbbu ñu ko yóbbu woon sëriñ bi itam la nga xam ne moo ko taxoon a jóg te mooy fexe ba nit ñi nekk ay julit. Hmm. nit ñi nekk ay julit. di jaamu yàlla. ci kaw seen coobaree bopp. ki bëgg a di gàmm ki bëgg màggal di màggal. ki bëgg a tabax ko tabax. bëgg a jàngal alxuraan jàng fu mu ko mën a nekk fekk mu defee ko fa. loolu bokk na li nga doon yitteem. loolu mooy li nga xam ne moo nekkoon ak njëlbeen te ba suñu jon yàlla tey ji day mel ne loolu dafa gën a jëm kanam. kon ñaari jeexit yooyu muy daraja yi doon koo xam day xeetli aw askanam àddina ak alaxira mm-hmm. ràmm leen ci kanam ëllëg yomal xiyaam mm-hmm. ak itam fexe ba réew mi di dund seen diine ci kaw seen coobare seen seen seen xorriya mm-hmm. seen liberté bopp ñaare mooy ñaari jeexal yi gën a rëy yi nga xam ne mën naa tënk mbooleem li ñu doon waxtaane ñoo ngi jéggulu ci euh, temps bu xaw gàtt bi wax waxtu moo xaw gàtt waaye mënees naa mën naa gën a guddal ci bare bare ndax mënees naa lim li mu wax ne moom bokk na li mu jëlee jukki bi mooy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla jural na ko ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëral ko mboolem nit ñu baax ñëpp mhm. ku ci nekk ngërëm ko ngërëm doo xam ne diggam ak diggam ak boromam mhm. kon xam naa foofu la ñuy tënk waxtaan wi rek mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëñ Xalil euh, ñu ngi lay ziar bu baax te di la jaajëfal te di la gërëmaat ci waxtaan wu am solo yi nga xamee ne def nga ko te mu bokk ci waxtaan yi nga xamee ne ku kuréel liggéeyal ku tedd ki ak mu xadd Muxaddamatul Xidma TV war nañ ko mën a war nañ ko bokk di ko def ci waajal wala gàttanu màggal te di leen masawu coono ndax ci coono yu bari yi ak yi ñu leen teg yoo mm. waxtaan wii nii bokk na ci waxtaan yi nga xamee ne dafay dundal ruux ndax may yi suñ suñ suñ borom may suñ Tuubaa suñ koy waxtaane dafay gën a yokku yaakaar ci murit bi ci suñ Tuubaa te am murit lépp luy gën a yàkku yaakaaram loolu dafay bokk ci li dafay war a dundal ak ruuxam kon ñu ngi leen ci sant bu baax te di la gërëm te di gën a santaat ak jaajëfal Moukhaddamatoul Khidma TV di ñaan suñu borom yàlla na ko suñ boroom gën a yokku te gën koo dëgëral mhm. ba mboolem fu maanaam ab chaîne di di àgg rek yàlla ko fa yàlla na ko suñu borom àggale ndax dañuy gis ne seen liggéey lépp mu ngi jëm ci lépp loo dafa yaatal njàngale Sëñ Tuubaa mhm. Mhm. te loolu mooy li nga xamee ne képp kuy am murit ci nga war a nekk mooy lépp looy fexe ba nit ñi gën a xam njàngaleem suñ Tuubaa te gis nañ bu baax ñoom ñu ngi ci taxaw di ci def di seen waar di leen ñaanal yàlla leen gën a suñ borom gën gën a taxawu te gën a leen dëgëral ci barkeb Sëriñ Tuubaa kon xam naa ñi ngi jox mbokk yi dig daje ba beneen beneen yoon incha allah ci beneen jotaay boo xam ne nii kuréel liggéey gu tedd gi dina ko bokk ak chaîne chaîne bii di Moukhaddamatoul Khidma TV di wax ne wa aleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci géej ba faf pour ali way xalima ak boroomam ba ak ci yàlla ak ci ngeen ji yoon nen ñu soppi ko soppi muy boroomam